senevision.com la crédibilité notre credo senevision.com wóor la ñuy tëggoo kumpa tàggoo nag yéen bismillahi rahmaani wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mbokki jullit yi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu àq ci weer wi ñu ci tedd bi ñu nekk ta moy yawmul jumaa di ñew di feñal sunu yeni ci waxtu yi xam ngeen ni bu jotee am na waxtaan yu am solo yu fi am te lepp jëm ci fatali ndax fatali day jariñ ab julit wala tax nak ñi nga xam dañoo yor walu xam-xam bi fi ci daara ji ak ci daayira bi bu aljuma ñewé ñu fasiyene dajalo jël ab tem waxtaan ci waxtaan wu am solo ta moy ñu def rek ab ab bo xamni ni fay jëm ci sëriñ bi nga xamni ni wara def waxtaan wi li ñu gën ko min ci sëriñ Mam mor mbacké sunu borom dogal mu jaar fi nga xamni fi lañ war a jaarale rek doomi soxna te mooy bi mu tolloo ci ñu dalal ko alquranul karim ñu yóbbu ko jox ko sëriñ Mamor Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Fadil ci daaraam ji mu jàngee fa alquranul karim ba wattu ko wattu gu leer nañ ñi jàng fayit it xam-xam bi nga xam ne baaxoo nañ koy jàng te mooy téere yi sëriñ bi di majaalis ba am ci li nga xam ni am na ci kano yu rëy rëy ba mu ci jógee it taxul mu dem ndox xam nañ ne ku jàng ba noppi rek waru garwa mooy dem soo ko mënee nga dem fay bor ba nga lebol leboon moo tax fii ci koñ bi mu yor fi daare alxuraanul karim joo xam ni gone yu fuccantikoo ci gox yu baree bari ñu ngi fay daje te moo leen di jàngal alquranul karim ci jumaa ji ñu nekkit doy na sëkk rek ci mu wokk ci ñi nga xam ne ñoo fi jiite te moo fi jiite waxtu tisbaar ak waxtu tàkkusaan kooku mooy sëriñ Maam Moor Mbakke mii nga xam ni doom la ci sëriñ Aafiya Mbakke de sunu kilifa gi nekk ci koñ bi war a def laabire ci waxtaan wi nag tey am na solo lool ndax ku tudd sëriñ Tubaa tudd yar ak tarbiya kon dafa mel ni waxtaanam tey mi ngi ko jëmee ci sëriñ tubaa ak tarbiya te mooy sëriñ tubaa ak ni doon yare ak sëriñ tubaa ak nim doon tarbiya loolu mooy waxtaanu tey wi ndax xam ngeen ni yaakaar naa yoon wi sëriñ bi loolu te mooy tarbiya te mooy himma fexe ba nga xam ni danga nga am yittewoo jëm ci sunu borom tam yar la ci fànn yépp ya karena yoonu murit mom buñ ko waxee rek ñepp seen xel dana dem ci lan moko fondé won ta moy moy tarbiya ak yar kon mam mor ci loolu la bëgg waxtaane muy mag ñi nga xamni non la leen serigne bi doon defaree ndax soxlo nañ ko ci jamono ji jamono ji nga xamni dañoo melni dem ba xawa ñak li ñi wax tuuti nak référence bo xamni wala jangat wala dembu bañ mën koo dundee ci waxtaan woowu ci la bëgg a laabire ndax ndaw ñi mën cee góorgóorlu ba am ci loo xam ne danañ mën a tax xam la Sëriñ Tuubaa la ko taxoon a jóg la nga xam ne moo ko taxoon a jóg mooy yar ak tarbiya nga xam ni loolu kon mooy waxtaanu tey wi kon Sëriñ Maam Mor bismillah ñu jox la nga ñëw ci waxtaan wi di jéggulu it xat-xat yéeg yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala lépp loo xamante ni yàlla digle na ko ñu mën ko ginnaaw nee na bu ëllëgee yamul xiyam safar wu ñu tuddee aljaxiim mooy seen wàccuwaay mu tàgg ñi nga xamante ni bi nekk ci àdduna dañoo amoon taxawaay bu rëy ci seen diggante ak seen borom subhanahu wa taala daan taxaw ci lépp loo xamante ni digle borom subhanahu wa taala di moytu tere borom subhanahu wa taala ñooy wax ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa inna al jannata hiya al mahwa nee na ñooñu àjjana mooy seen mooy seen wàccuwaay ba ëllëgee yamul xiyam bu ko defee nag a acheikhu bi maanaam sëriñ bi nga xamante ne moom mooy mun mënta ñàkk a xam bakkan yi ndax doomu aadama dañuy wute maanaam kenn ku ne ak bakkan bi mu indaale loolu nag sëriñ bu mag bi loolu yàlla da ko ci dimbal woon nit ku man di ñëw ci yow xam na ni mu lay tarbiya am na ci koo xamante ne bu ñëwee day indi ak rëy ak rëy lay indaale kooku da ka daa yalwaan loo ci foo xamante ni dëkk yoo xamante ni xëy na dafa am wàccuwaay da daa yalwaan loo bu fekkee da koy da koy da koy da koy da koy da koy jox ab dund mu koy séddale moom moo yor wàllum dund geeg xeet yu demee noonu wala sax mu koy séddaloo lu mel na kafe wala ataaya xeet yu demee noonu bu fekkee ne ko xam dafa tàyyal mu koy naafilaloo wala mu koy liggéeyloo liggéey liggéey yu mett yoo xamante ni dañuy tàggatu bu ko defee nag tarbiyee ci boppam am na ay yoon yoo xamante ni yoon yu bari la waaye nag dañuy tànn ñetti yoon yoo xamante ni sëriñ bi moom la daa tarbiya wala bokkoon na ci tarbiya sëriñ bi lu tudd at tarbiyatu bil xaali wal maqaal ak at tarbiyatu bil himma ak at tarbiyatu fikri wa suluki yooyu sëriñ bi moom la boole woon yooyu yëpp la boole woon bu ko defee nag sëriñ bi ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan tarbiya noonu la daa tarbiya moom Seexul Xadim radiyallahu taala moo tax benn naar ne ko antal murabbi bi ma rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin maa fil jiili sharwaak yaay ki nga xamante ni ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan tërbiya noonu ngay tërbiya say taalibe bi kon yonent bi sallallahu alayhi la doon lu ci wàllum tërbiya googu bu ko defee tamit sayxu yi ñett lañ mooy sëriñ yi am ngi tuddee say sayxu taalim moom moo njëkk ci taalibe bi ak kuy tuddee sayxu tarbiya ak kuy tuddee bi mooy gan mooy ki nga xamante ni mooy jàngal taalibe bi li yàlla gàll ci moom lu mel ne xam-xamu tawxiid xam-xamu fiq xam-xamu euh, al ihsaan dañ gën ko xam ko ci tasawuf ci yoon wi bu ko defee sëriñ boobu mooy jiitu ci taalibe bi bu dee ba xamante ni maam xamal na ko loolu sëriñ bi gën a yëtte ci moom mooy mooy cheikhu cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya lan la jëriñ mooy li la cheikhu bi jàngal moom la koy moo la ci yar mën koo jëfe bu ko defee nag cheikhu bi doog a ñëw bu fekkee danga bëgg a beneen euh, mustawa bu gën a lu mel ne àgg ci yàlla soo ko taraxee mooy ñëw daal lay daal lay yëg ci ci yàlla daal def tasfiya ci yow yëgal la yàlla yëgal la ci yàlla bu ko defee nag dañu wax ne cheikh yëpp nag yi ci gën a bi ci gën a kawe mooy cheikhu cheikhu tarqiya moo ci gën a kawe kooku nag am na ay màndarga yoo xamante ni moom lañ ko xàmmee dama ne kooku saa boo ko gisee cheikhu tarqiya saa boo ko gisee say jaamu yàlla day gën a yokk jëmm ji rek dalay yokk ak jaamu yàlla in raaytahu tazidu fil amal saa boo ko gisee sa jaamu yàlla day day gën a yokk saa yoo wax moom boo waxante moom dalay doole xaal inna xitaabahu tatmiyatun lil xaal saa yoo jaxasoog moom day tëbb ay leer ci yow di la jox inna muxaatatahu mutaxarrikatun mushiratun lil anwaar fi basaatil anwaar kooku mooy charqu tarqiya bu koy fee nag sëriñ bi tarbiya bi mu njëkk def mooy tarbiyatul xaal diggante bi mu nekkee Mbàkke Kajoor ak Mbàkke Bawol ak Daaru Salaam foofu tarbiyatul xaal la doon def tarbiyatul xaal mooy lan maam di ànd ak nit ñi talibi di len tarbiya ci hal lolu mo taxone nga da gis mag mo xamanteni day nek ci kaw njombaxtalu garab dadi euh daanu ta dara du ko dal gis mag mo xamanteni day xol tal bu tal bi tal bi tal bi tal bi seb bi maam séb bu bu bu mu dugg ci ta dara du ko dal gis ko xamanteni day gis ndox mu ndox mu tang jir bay bax mo nan ko ta dara du ko dal kon lolu moy tarbiyatu bil hal lolu serigne bi def bi euh, booba sanjgut dañuy wax ne boobu sanjgut Touba bi nga xamante ni ci la sanc Touba nag dañuy wax ne ñeenti daara terbiya la njëkk sanc ñeenti daara terbiya bu njëkk bi nekkoon ci wàllum ndeyjoor mi ngi ko joxoon Serigne Ibrahima Sarr Njaañ bi nekkoon ci wàllum càmmoñ càmmoñ mu jox ko Serigne Massamba Diop Samb bi nekkoon ci wàllum penku mu joxoon ko Serigne Dame Abdourahmane bi nekkoon ci wàllum sawo bi moom la jox si Ibrahima fal kenn ku ne nag da koo joxoon ñetti dongo ngir mu tàmbalee ci bu ko defee nag foofu. ñu indi ay histoire yoo xam dañ koy nettali rek ngir euh, xam euh, jëmmi tërbiye Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu tërbiye sëriñ bi ni mu def ci nit ni mu def ci nit day dem ba nga xamante ni maanaam ruux gi day yëpp doole sa yaram am na nettali boo xamante ne dañ ko nettali sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana indi na ko ci Irwaa'u Nadim sëriñ bi mas naa yónnee loo xamante ne ci àll ba la ne léegi loolu ba mu ba mu ci yónnee ay mag dañoo dem ba gis ca àll ba gis gis ko ci kaw genn garab gu kawe waaye bi ñu demee dañoo taxaw di ko xool kawe na te garab gi bëri na ay dig dig yu bëree bëri moo ci nekk waaye dégg naa Cheikh Fall moo leen fa moo leen fa fekk Cheikh Fall daal di laaj ne leen loo leen def fii ñu ne ko ku baax ki de moo ñu yónni waaye lam ñu yónni moom daa kawe fam nekk ma nga ne waaye daa kawe te garab gis nga ko moom daa fees dell ki dig dégg naa bi waxee loolu Cheikh Fall dana ñol ci kaw garab gi tàmbali yëg nga xamane dig yi dig yi dañ ko doon jam dig yi te taxul mu bàyyi deret yi wax ne mom lo loolu dagal neena na deret yi doon takk ci garab bi te taxul taxul mu bàyyi kon lolu moy tërbi Cheikh Khadim radhiyallahu ta'ala ben bi moy Serigne Makhtar Mbaye Kayra bis bo xamanteni dafa doon doxantu joge ci kërëm ginnaaw timis am kum andal ben xamna ab taalibam la bi mi dox ba ci yag am ku ko rombu dal ko xabar yeso mu laaj ko kum doon waji waji dako ki de nangam la ndekete kooku jigéen la bi mu ko jigéen la wax ko turi yi daa dëppaat dem ba ci benn taal bu nekkoon foofu benn mat safara moom la jël summi mbagg mi summi mbagg mi ba mu set mu jël matt safara bi daan ko ci teg bës ko ci bu baax daan ne mbaggum góor moo xamante ni dafa laal jigéen jum takkut mbagg moom lakk ci war loolu mooy dérbi Cheikhul Khadim beneen bi mi ngi mi ngi dal euh, sëriñ Mouhamadou Lamine Diop sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana dafa jógee ci këram di jëm ci jàkka ji bi mu dem. am mbooloo moo xamante ne ñoom la taseel ñu ñëw waaye mbooloo moom góor ñi ak jigéen ñi ñoo jaxasoo waaye daf ko yóbbee xaal da doon joojoo yu métti di yëkkat yëkkat yu métti daan ne jàppoon naa li des sama dund du mu ci gisee lu bon nii loolu li ñu ci déggee mooy Sëriñ Tuubaa yar ba nga xamante ni dootul a gis lu bon dootul a gis lu maam góor ñi ak jigéen ñoo jaxasoo góor ñi ak jigéen mu daan jàppoon na li des sama dundu duma ci gisselu bonani bona nii daan ne bu ci nare gisselu lu dess lu bonani sama dundu yalla wuyi sama soppi ba Seexul Xadim radiyallahu taala kon lol moy tarbi Seexul Xadim radiyallahu taala bu ko defé serigne bi diggante bi nga xamanteni ni Mamour Anta Sali jogé na fi manam wàcc na ab liggéey dañoo wax ne yor na ji yor dara ji lu toll ak at ak genn wal bobu nak mi ngi do def ay ay ay bahs ay gesto yo xamanteni mo ngi def ci diggante borom xam-xam képp koo xamante ni dégg na ci moom xam-xam wala nangam dana dem gëstu ko bu ko defee tamit daana yër téere wofi, fi mooy téere gaa yu baax yi fi nekkoon bañoon lool lépp loo xamante ni ngërëmal yàlla nekku ci sëriñ bi da ko da ko teel a bañ loolu ci ndaw la ko tàmbale woon daan taxawee guddi loolu tamit ci jamono mamor maam soxna jaara la ko tàmbale woon daan def ni tudd asiyaxatu maanaam di wër gaa yu baax yi fépp fu mu dégg ne waaju baax ma nga fa dana dem ji ko moom Cheikh Khadim taala anhu daan xabru ay waxam tamit daana da ko daa xeetal ak waxi waa tasawuf mooy seen ibaara ba tey eh, daana feeñal ay maanaa yu sew lu mel ni ci alxuraan nit daana ñëw mu wax ko ci wax joo xamante ni teel a ko doog a dégg teel ko doog a dégg mooy maanaa yoo xamante ni maanaa yu yéeme la nga xamante ni bu ko waxee rek na xam ne kii moom daa am lu koy waxloo waaye du mu jàng kase bu ko defee tamit ay waayam ci boppam boo ko seetloo day tasawufe maanaam day ragal yàlla moom Cheikh Xaadim radiyallahu taala anhu bi mu Euh, sóobu ci yàlla gi da ko mujj not lool boo xamante ni bu doon wax ak nguur la dañ wax ne not na ko sóobu gi ci yàlla ci lu mujj nag da dajale mboolem ña nekkoon ca daara ñëpp daara yi Maodo Anta Sali daa def benn xutba boo xamante ni ci ñoom ñëpp la ko jëmale daa wax ne ala man kaana sahibana litaallumi falyansur li nafsihi walyahdab haysu shaa walyahwi li jinsihi wa man arada ma aradna falyasir bi sayrina walyuqim bi amrina dane képp koo xamante am jangum kase kase kase mo la findi man nga dem mottali ko fenen fo meuna jangé ko xamanteni nak lima yëkëti mo la ñëw and ak man ta moy yoonu tarbiya lu nak dégg naa Cheikh moom ma jëw dagal neen bi ko waxe rek da demat da dem fatu juwat ciolé na kur ndax li waral lolu moy serigne bi da mënoon a jàngale lool dama yi mo Mamadou Sall nekk na fi xaaj dañu dañoo kon ñoo di jangé ci serigne bi serigne nak bu fekkee dafa xey rek wax lolu dana jaxal nit ñi moo tax euh, si moom la yow dagana nee na kenn mënut a toog kenn mënut a taxaw ngir ngir wax ju ñu leen kawee nee na euh, ñenn ñi dañuy toog kun mën a téye téye ko ñenn ñi di dem kun mën a yóbbaale yóbbaale ko neen affaire nee na mbir mi daal fi mujjee mooy ñëpp dañoo dem ñi new des fa kon loolu li ci déggee mooy njëlbeen ak lu baax lu ne loo gis fii lay tàmbale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko suñu borom subhanahu wa taala yónnee su borom lu ko jëkk wax mooy waaral sa njaboot ak ñi la gën a jege wa andir ashirataka al aqrabin léegi bi muy bi mu tàmbalee loolu bi mu tàmbalee loolu di waar par ndànk-ndànk ba ba mu tàmbalee siw léegi lu mu ko li mu ko wax dana ko bi ma tu'mar wa arid anil mushrikin dana ko fésal fésalal maanaam fésalal li ma li ma li ma li ma def ci yow daan ko na nga dëddu yéefar ñi donte dan lay xas wala ñu lay ŋàññi bu leen faal kon lu baax loo gis foofu la tàmbale bu ko defee nag jëm ñi tarbiya tamit mënuñu ko wax te waxuñu xam-xam kon li ci njëkk mom moy xam-xam bu ko defee serigne bi euh, téré bi nga xamanteni mom la jëk talif ci jamono Mamadou Ansali moom la ñuy wax euh, téere imaamu Sanusi bi nga xamanteni mom la defon euh way ci umul barahin téré bobu moy mawahibul qudus Mamadou Ansali jangal nako ñaari doomam ñu mom siwna na ñu koy netali téré ba ci tege téré imam al Ghazali bi nga xamanteni moy tudon bidayatul hidayah mom Hidaaya moom way ko mu layyinu sudur mu lay nu si dóor googu nag wax nañ ne diggante bi dañoo am ay ay njaxas yu ñu ci dugal yoo xamante ni bokku ci moo tax sëriñ bi defaat beneen muxtasar bu gën a gàtt tuddee ko Munawwirus Sudur nga xam ne képp kuy jàng mën naa jàng téere boobu di Munawwirus Sudur bu ko defee nag loolu mi ngi amoon ci atum ama chardadi te mooy mille deux cent quatre-vingt-quatorze euh, dëppoog atum tubaab mille huit cent soixante-seize ci ginnaaw bi ci la bind téere bu naan Jazbatu Sigaar Euh, teg ca al jawharu nafis bi nga xam ne siiw na lool ci euh, jamono ji al jawharu nafis bi nga xamante ne al imaam al axdari moo ko way euh, def ko nasru sëñ bi ñëw nasma ko bu ko defee sëriñ bi mi ngi wax ne bokk na ci kéemaan yi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy du na ko mooy bégale gi mu ko bégalee fas daa bi ma tu umar waxante anal musrikin nga xamante ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko waxoon loolu way na ko ci ay bayit wa min ajaa'ibi ibni abdillahi صلى عليه بسلام salaam باخ أضاء أرضه بالأولياء إلى القيامة كل وليا سنته وصانها عن بدع تبشيره خديم بفسدع أمره صلى عليه الله في لال وصحبه ومن والاه nee na bokk na ci kéemaanu mooy bégal gi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégale na ko la ko borom bi subhanahu wa taala waxoon te mooy fastan googu mooy fastan bi maa tubaru mushrikin loolu mooy lan mooy wóol taalibe yëpp wool taalibe yi bu fekkee sëñ bi ci sëriñ bi li muy firi mooy wool taalibe yi képp ku a xam yàlla nga xamal ko yàlla képp koo xamante ne bëgg na ku ko laabire nga laabir ko te yàlla tax bi ay yuallima al muridina wa man yaqbalu minhu nusaha min ahli zaman sëriñ bi tamit wax na ne sëriñ sëriñ bi wax na ne maanaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ko tarbiyal boppam loolu wax ne wa annahu awsalahu an taxliya li rabbihi mubashiran bi taxliya ne ni tudde at taxliya ak at taxliya ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko defal at taxliya moo mooy dindi bépp jikko joo xamante ni jikko jun taamul la nga génn ko ci ci nit ki def ci moom bépp jikko joo xamante ni jikko ju taamu la jikko jun taamu la bu ko defee Seex Xaadim radiyallahu taala anhu bi nga xamante ni suñu borom subhanahu jox na ko al wilayatul kubra mooy wilaya bi gën a rëy ci wilaya yi mu toon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahir ak ci baatin suñu borom kàttanal ko ci xam-xam kàttanal ko ci ay xikam kàttanal ko ci leer yi kàttanal ko ci ay asra ci ay ay asrar ba noppi tamit may ko kàttanug mu man a téye xutba gi nga xamante ne moom la ko na wa taala jox foofu nag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ne kii mënut a nëbbut wut mën a nëbbut nag la na ko fastan bi ma tuumar wa anil musrik maanaam fësalal li yàlla def ci yow daana ko wóor nit ñi ñu wéeru ci yow wóor nit ñi jàpp ci yow wóor nit ñi ñu di ñu diglu seen dégal bàyyi say tere kon loolu la ko yonent bi wa wax bu ko defee xéwal gi nga xamante ne nekk na ci Seexul Xadim radiyallahu taala anhu bu fekk ne dafa toog rek waxut xéewal yi nekk ci moom kenn du xam moom mooy kan kenn du xam moom moom mooy kan kon am na xéewal yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala def na ko ci moom xéewal yoo nag nettali ko nettali ko nekkut ak ndamu nettali ko daa bokk ci wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith nettali xéewal yi suñu borom subhanahu wa taala def ci yow loolu ak sant yàlla la yéen sama daana ko wax daana wax ne lépp lu yàlla bind maa ci gën daanaka waxu ko ngir ndamu waxu ngir da ko wax ngir ak yàlla loolu ak sant yàlla ndax moo ko xéewale li mu njëkk wax ci jagle yi ko yàlla def yi ko yàlla defal daa wax ne xafistu ma siina naa ni fala takun an xidmati bi fatiri suñ borom jox na ko xam-xam boo xamante ni nekku ci ay téere suñ borom jox na ko xam-xam boo xamante ni nekku ci ay téere daan ne fépp foo xamante ni yaa ngi dégg ñu fay liggéeyal Seexul Xadiim nee na bu ko yeexee fépp fu ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa nee na na nga fa dem dugal sa loxo fala takun an xidmati bi fatiri bu ko defee nag xam-xam bu nekkul ci téere loolu bu ñu ko waxee am na ñoo xamante ne seen mustawa agul foofu waaye am na ñu tuddee xam-xamul laduni mooy xam-xam bi nga xamante ne suñu borom subhanahu wa taala moo wax ne ku ragal yàlla ma jox la ko wattaqullaha wa yuallimukumullah xam-xam boobu suñu borom subhanahu wa taala ma ko yor ku ko ragal ma jox la ko xam-xam boobu la joxoon sayyidina Xadir mooy moom la waxoon ne wa allamnaahu min ladunna xilma bu ko defee nag wax bokk na ci jagle yi nga xamante ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala jox nee na suñu borom jox na ko barkeb alquran ak barkeb xam-xam te nee na woo mën na ñaari barkeb yëpp def ko ci am njàngalem ataaniyal muxti bi jaahil mustafa salla alayhi bi salaami listafa barakat alqurani wal ulumi wa qaada yumnaha ila taalimi su borom jox na ko barkeb alquran jox ko barkeb xam-xam wam ñaari barke yëpp def ko ci am njàngalem ba tey wax na ne suñu borom jox na ko sekkereb laa ilaha illa allah mu rasulullah loolu buñ la ko waxee war nga ko mën a gëm ndax xasida yi ngay gis xasida yi ngay gis gis nit koo xam ne day jàng xasida day nekk koo xam ne day saaxira lool ay taq-taq xëy suba jàng xasida rek gën ay mbokkam loolu xasida yi moom moo ko def kon loolu bu la waxee ne suñu borom jox na ko sekkarab laa ilaha illa war nga gëm loolu wax ila tawali fi yaquudullahu asrara laa ilaha illa allahu wax na tamit suñu borom subhanahu wa taala mu ko mën di jox maa suñu borom subhanahu wa taala da koy jox ay xéewal te xéewal bu ko jox da ko nanguwaat nasaa lii wa laysa minni yansamu wa inna nii bihan wa inna nii bihi man wa mafsamu nee na nag ci noonu ci laa ci laa nekk ab waaj ci ab laqwaay bu ko defee nag nee loolu bu fekkee dalaa jaaxal bu fekkee xéwal yi subhaanahu wa taala jox Seexul Xadim dalaa jaaxal tontu bi mooy daalika fadlullahi yuutihi alladi yashaauhu wa qaala lii qul bii ludi nee na loolu ngëneelal yàlla la rek yàlla mooy xool jaam bu ko neex mu jox ko kon Sëñ Tuubaa la yàlla neex mu jox ko loolu loolu xéwal goo xamante ni subhaanahu wa taala moo ko jox bu ko defee nag bayit boobu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana leeral na ko loolu mooy lan dana ay amarani rabbi bi an usarriha bi annani maladun wa himan wa mafsan fa man arada al xayra fii kiltaye daarani falyatbiya nee na képp nee na so borom subhanahu wa ci boppam moo ma digal man Cheikhul Khadim ma wax ne ab wiiruwaay laa ab làquwaay laa képp koo xamante ne namm na bëgg na yiwu adduna gu alaxira na ñëw wéeru ci man loolu loolu mooy loolu mooy maanaa bayit boobu bu ko defee am na bëgg la boo xamante ni day ñëw ci képp koo xamante ni aju na ci Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu loolu ab soñña la moom bi ci jëkk mooy faaza muridun xaadahu llahu ila wala faaza muridun xaadahu llahu ila taalluqin bi wa yahza bil ila nee na murid bi nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala moom mën na ko ba mu ñëw aju ci man nee na kooku suñu borom dana ko xéewalee wa dana ko cërale ay xéewal yu rëy bu ëllëg yomul xiyam wax na tamit ne yahza muridun lam yamal la min nii bi ma bihi yahza xayra man ni murid bi nga xamante ni aju na ci man te yokkutut yokkutut maanaam déngi déngi wut nee na suñu borom dana ko xéwale xéwal ya gën a rëy xéwal ya gën a ya gën ca xéwale wax na tamit yaa wa muridun laa tabii bi maa yafuq maa wannahu billahi jaar bépp murid boo xamante ne ñëw na jox ma boppam yëru ci man suñu borom subhanahu wa dana ko jox lépp loo xamante ne njort na ko ci borom subhanahu wa taala nee na tamit bépp murid boo xamante ni jox na ko boppam yëru na ci moom yëru gu leer nañ nee na kooku dana texe te du dajeeg benn lor boolu géem xe am kullu muridin wa innahu min al ada mubaadu ba tey tamit nee na képp koo xamante ni aju na ci moom mucc na ci nax naxi àdduna ak nax neex alaxira lu kulli man bi yataallaka najaat min kadari dunia wa fi yawmin najaat xéwal gi nga xamante ni nekk na Cheikh Khadim radiyallahu taala anhu fi nga koy gëmee mooy lépp da koo jox boppam dañ koo jox seen bopp ba ci jinne yi sax dañoo dañoo jébul mooy jinne yi nga xamante ni dañoo jamono Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu ñëw nan jébul Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu bi alladi bi yata'allaqa alladina aslamu min jinne asri yi nga xamante ni dañoo jébbalu dañoo tuub te bokk ak man benn jamono nee na ñëw nan jox ma seen bopp bu ko defee nee na tuskare an mbugal ñeel na ki nga xamante ni damaa joxoon boppam ba noppi wëlbati woon ma ginnaaw incha allah musul waylun liman anni tawalla mudbira baada al iradati wa anni sabra mbugal tuskare ñeel na ki nga xamante ni daa ñëwoon jox ma boppam ba noppi nangu maa muñ wan ma ginnaaw nangu maa muñ ñu ci al musal bu ko wax nañ xéewal li nga xamante ni moom la Seex Xaadim wax ci murid yi ak li ko yàlla defal léegi nag kan mooy murid bi muy waxal murid bi Seexul Xadim di waxal mooy kan xam lu bi ci njëkk mooy idil muridu la yuridu abada ghayra ridar rahman haythu qashada murid bi moy kan murid moy ko xamne lepp lu man di jublu ngeermal yalla la ci sàkku loolu mooy tekk bi gëna gaw mandi lu man di jublu ngeermal yalla la ci sakku ak metti mu man di doon ak liggey bu man di doon ngeermal yalla la ci sàkku beneen taarif bi moy benen xamna bi bo demé ci minanul baal khadim Cheikh Mamadou bashir nettali nako muy serigne bi bi nga xamanteni mom ci lay dogo sos Touba moy ci lay dogo a Touba talibi nek nekk salam daa yónni ku ñuy wax Abdullahi Jaw ne ko boo demee ne muride ne leen képp koo xam ne daa ànd ak man ngir àdduna kase na dem bàyyi ma daara ji képp koo xamante dafa ànd ak man ngir alaaxira kase na dem tamit bàyyi ma fi daara ji képp koo xamante dafa ànd ak man ngir àdduna ak alaaxira tamit na dem bàyyi ma fi daara ji képp koo xamante nag dafa ànd ak man ngir yàlla kase kase ko gën a toog ànd man kon ànd ak sëñ bi defe naa lu jafe-jafe la beneen taarif bi dañuy wax ne murit dafa niru lu yomb ci ay waxin wala ci ci ci ci ay jëfin waaye nag lu lu jafe la ndax suñ suñ suñ Musaa Ka am na benn waay yum ci waay wala lu tollook ñetti waay yoo xamante ni wax na ko ci daa wax ne murit dëgg yombul la yombay nga wax ne man am murit laa te doo am murit gisal waaye ngi gisal waaye ngi jug di dox ci murit ba am ay murit ak du murit gisal waaye ngi jug di dox ci murit ba dundam nga far jeex mu réer ak murit léeg-léeg nga gis koo xamante ni day nekk ci murit gi nekk ci murit di ci dund wala sax muy yar ay murit te fàtte boppam gis koo xamante day dund ci murit gi ba dee te doo xam lu yéen lu lu Seexul Xadim doon woote kon loolu mooy loolu mooy bu ko defee nag loolu mooy loolu mooy murit gi nga xamante ni moom la sëñ Moussa Ka wax sëñ Mbàkke Busso tamit wax na ne ñaanu nag sëriñ bi ñetti kuréel lan kuréel bu njëkk bi mooy ñi nga xamante ni ñoo jaayante ak sëriñ bi ci Mbàkke Kajoor bi ni mu demee ci géej nee ñoo ñu mos nañ ci sëriñ bi loo xamante ne ku dul ñoom mosuñu ko ndax jamono jooju daa fekkoon sëriñ bi daan am jot di leen tërbiyal boppam ñaareelu mbooloo bi moo ñaareelu kuréel bi moo ñi nga xamante ni jébbalu nañ sëriñ maanaam jaayante noog sëriñ bi ci euh, bi mu nekkee ci tukki bi ba ñu ñëwee gànnaar bi benim dem benim demé jolof ñoo tamit nee na mos nañ loo xamante ni ku dul ñoom mosuñu ko waaye nag ba tey bëgguñu njëkk ña ñetteelu kuréel bi mooy ñi xamante ni ñoo jébbaloo njaareem mooy ñoo jaayante njaareem ñooñu moom si bekk bu su nee na ñi ci ëpp xam ñu sax lu sëñ bi ci ëpp xam ñu lu sëñ doon woote nee na ñooña bu njëkk da nga gis sëriñ bu daan ñëw bu génn ci kees yi daan ñëw murid yëpp dañuy toog kenn nuyoo ba sëriñ bi jàll waaye neen mujj gi ñoom ñi nga xamante ñoo fi mujjoon dañoo mujj mujj gi am na bis boo xamante ne dañoo bëggoon a barkeelu ci sëñ bi dem ba ko gaañ ba yaram dagg mooy ñoo mujj ci ci jamono joojo nee na ñooña tamit su may wax ba léegi nee na ñooña ku fa masaan ñëw ci gan yi ñoo lay wan tabax ya fa am tabax ya fa nekk ñoom ñoo la ko wan tabax yan fa def moo tabax yu rafet yooyu ñoom ñoo la ko wan nee na ñoom tamit ñoo daa jël ñoo daa jël xaalis sañ bi moom noonu la ko waxee suñu bàgg bu ñoo daa jël xaalis sëñ bi bu ko defee euh, dëgg-dëgg murid buñ ko doon xamle ni ko sëriñ bi waxee mooy daa wax ne xabdul iradati bi xawli saada tarkul muridi ma ali aada tumma rujuuhu ila al muxtaadi qabla usulihi kal irtidaadi dëgg-dëgg murid mooy koo xam ne bàyyi na aada aada aada mooy loo xamante ni nekkul farata nekkul sunna nekkul luñ sopp mooy da nga koo da nga koo taamu di ko def nii rek wutal ko waxtu lu mel ne am na ko xamante ni am na émission boo xamante ni saa bu jotee da koy seetaan am nañ koo xamante ni am na naan gu muy naan boo xamante ni waxtu woo saa bu jotee mu naan ko loolu tamit loo aadoo di ko def rek am na ko xam ne day seetaan loo xamante amul benn tiyaaba te waxtu wu jot moom lay seetaan loolu amul benn solo murit ba bëgg àgg ci yàlla loolu day tàqoog loolu bu ko defee nag nee na murit bi bëgg ak loolu lay njëkk a dindi nga xam ay aada la nga xam amul benn tiyaaba nga bàyyi ko bu fekkee nit ki nag murit fekkee nee na bàyyi na yooyu yëpp ba noppi nag daal di ñëwaat ci yooyu mu nekkoon nee na bu fekkee nit yi tasawoo fii li ko jàppee mooy ku murtat ku murtat ci diina maanaam bokkut ak ki murtat ci diina ñoom seen masawa seen seen seen seen seen seen seen seen wàccuwaay ci ci yàlla dañuy jàpp ne ci bàyyi lépp adduna lépp loo xamante yàlla aramal na ko wala lépp loo xamante ay aada la kii demee noonu ba noppi nag da ci dëgmalaat kooku dañ koy jàppee ku murtad ci waa tasawuf murid bi tamit bala moo wéet di def ay sikar wala muy euh, def ay jihaad xeet yu demee noonu sëriñ bi jox na ko benn laytaay boo xamante ni moom lay laytaayoo bala moo def loolu ndax loolu mën naa la yóbbu musiba jékki-jékki rek di wéet def ay xalwa di wér di yoo xamante ni kenn xamul fu mu yem wala ngay jàng-jàng yu métti yoo xamante ni amoo aw yoon wala teguwoo ci aw yoon yoon wi sëriñ bi tege nag bi ci njëkk mooy tawxid murid bi li war njëkk ci moom mu xam xam-xamu tawxid mooy ni ñu wéetale yàlla xam ni ñu wéetale yàlla ba bañ koo jaxaseeg dara boo ko jàmm boo jàlle ci xam-xam boobu nga teg ca xam-xamu sharia mooy li yàlla gàll ci yow mooy li nga xamante ni mun a ñàkk sa dund boo demee ba xamante ni am nga ci musawa bu kay nga dem ci li ñu tudd al ihsan bu ko defee ihsaan mooy lan nga xam mboolem yooyu yëpp noo koy rafetale ba yàlla mën ko nangu loolu la waa fii di tuddee ak tasawuf bu ko defee nag moom la wax ci ay biir ne awwalu waajibin alal muridi taxsilu zaadihi min at-tawxiidi qabla istigaalihi bil infiraadi bi dikri waxdu wa bil jihaadi bu ko defee nag bu fekkee yooyu yëpp nag am na nga doog a sóobu nag ànd ak gaa yi nga xamante ne ñooy gaa yu baax yi mooy ahlu sunna mooy ñoo xamante ne seen lépp dañ ko teg ci sunna nee na mooy kaaraange ji gën a rëy mooy kaaraange ji gën mag bu fekkee nit ki xamul yooyu yëpp lay taay gi xamu ko daa jékki-jékki tàmb daa jékki-jékki daal di sóobu fas yéene àgg ci yàlla ne kooku fi da mel ni dof boo xamante ni naa dajeeg lu loo xamante ni mën na ko mën na ko gàllankoor bu ko defee euh, li tax sëñ bi wax laytaay boobu am am gam gam solo maanaam nit ki bu fekkee diine njëkkut ci moom lu mel ni tawxiid xëy na demee noonu bidaa li ñu tuddee bidaa dafa dafa lëndëm dafa sew nit ki bu fekkee ne xamul dara ci wàllum diinam boo noppi bëgg soobu àgg ci yàlla mën naa def loo xamante ne day jàpp ne lu baax la fekk ne lu ñaaw la loolu mën na ko yóbbu ci topp bidaa iz zulumaatu bidaati ixtiqaadi takuffu anwaar itibaa al haadi bidaa ay lëndëm la topp yàlla ak leer la bu fekkee nit ki dafa nag lépp lum mu toppoon yàlla ci am ko ci ak leer leer googu yëpp day effacé wu na ci musal bu jege état boobu nag na wut ab sëriñ ab sëriñ boo xam ne moo koy moo koy moo koy ci yàlla ab sëriñ nag bu mat sëkk lañ la wax ala yaday mukammilin wa baaduhu yasluku in raamal wusul ala yaday mukammilin yaqfur rasul nag wut sëriñ boo xamante ni sëriñ bu mat la ci wàllum diine moo xamante ni moo lay teg ci yoonu yàlla ba nga ci yàlla sëriñ boobu nag lim la njëkk a wommatee mooy ci xam-xam li muy def lépp ci xam-xam la koy teg ñaareel ba tamit da lay ci ak jaamu yàlla moom sëriñ boobu nga àndal noonu la la yare ci bàyyi aada moo ne nga aada woon démb te amul teslaa ci lislaam yëpp dala koy dala koy moytuloo yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkal aada kon ki nga xamante ni euh, am na tawxid gu mat sëkk jàng wàllum sharia am xam ci lu bari gëstu waa tasawuf ak seen i mbir te ma loolu mooy al ihsan bu noppee nag daal di soobu ànd ak ahlu sunna bu ko noppee bu noppee ci yooyu nag mën naa wut ab sëriñ boo xamante ni moo koy moo koy moo koy àggale ci yàlla bu ko defee sëriñ Mbacke Bousso am na téeram bu ñuy tuddee an nubudatul mubaraka boo xamante ni sëriñ Moussa moo ko doon laaj sëriñ Moussa Ka moo doon laaj sëriñ Mbacke Bousso ay qualité yoo xamante ni ndax bu amee dana maanaam nit ki ndax mën naa ñàkk a wax aslamtu si ba noppi aju ci sëriñ bi sëñ euh, sëñ Mbacke so ne ko waaw loolu lu mën a nekk la daat koy limal lu tollook ñeent yoo xamante ni loolu day firnde ak ajo day firnde ak aju waaye bi ci njëkk dana ko bu fekk sëriñ bi mi ngi dund mëno ñàkk dem jaayante ak mom mom la olofi nan jëbul fi, waye jaayante moy baat bi gëna wër bu fekkee sëriñ bi mi ngi mi ngi dund na nga dem jaayante ak mom kon loolu moy fekkee mi ngi dund bu fekkee dund nak nga bëgg a yow aju nga ci mom moy li lay xamal ne aju ci sëriñ bi moy jël aw wër doom lu melni ne weddu maaxuus képp koo xamante jël nga ko rek am nga ak aju ci sëriñ bi wala weddu weddu yenen yi lu melni ne weddu tijaan wala weddu khadir yooyu yëpp rek kon koo jël wérdam rek aju nga ci moom beneen bi liy tegtale ak ak aju tamit moom lay al xidma xidma kon sëriñ bi fekkee yaa ngi xidmaal sëriñ bi loolu day tegtale ak aju beneen bi tamit joxe addiya addiya loolu day tegtale ak taalluq tamay ak aju beneen bi al mahabbatu di al mahabba mooy ak sopp sopp sëriñ bi te yàlla tax loolu tamit day tegtale ak aju bu defee tamit sëriñ bi tegal nañu ab sëriñ nan la war a mel ab sëriñ kon nekul ne ko gis rek jàpp ne ko ko serigne nga jox ko sa bopp déedéet bi jox nañu ay ay ay ay ay yoon yo xamantene ci lañ jaar ba mën xam kan moy ab serigne nee serigne bo xamantene xel mi neexut sal serigne bo xamantene xel mi neexut bu ko jox sa bopp wala serigne bo xamantene dafa bëgg aduna wala mu xemem ay dara ja xeri ma noonu bu ko jox aduna bu ko bu ko jox sa bopp loolu wax ne waxtabiri rijaala xabla soxba wala tusahib ghumran aw zaarax serigne bo xamantene xel mi neexut moy serigne bo xamantene yewu ci aduna sëriñ boo xamante dafa bëgg àdduna mooy seriñ boo xamante ni lépp lu mu am ci àdduna la koy la koy yamale kooku di ba ko jox sa bopp koo xamante ni tamit fu mu toll day bëgg a kawe ñëpp sëriñ boo xamante fu mu toll day bëgg kawe ñëpp kooku tamit boo wut ab sëriñ na ko fa jéggi wa kulla man raayta yastaalu abid min al mashaayixi fa daaw yaa mari fa daaw la fa daaw na nga ko fa bàyyi wuti keneen kon sëriñ boo xamante ni daa bëgg ak kawe ak bëgg daraja ak fu mu dem ñu jox ko na kooku na nga ko fa bàyyi wuti keneen koo xamante ni yàlla rek moo ko tax loo tax mag ñi àndoon ak sëriñ bi mosuñoo bëgg yilif dara ci àdduna mag ñi sëriñ bi bu leen masaana laaj loo bëgg liñ ko wax mooy àdduna moom mooy bu ñu jox dara loolu lañ ko jëkk a wax kon ñoom bëgguñoo yilif dara moo tax sëriñ mbay jaxate waxoon ci benn wayam ne fee jant bay fenkee ak fee muy xala sooy jee yilif ko ak laxu seelooni la yemale maanaam fi jant bi di fenkee mu yilif ko ak fi jant bi di songe sowee mu yëlëf ko ak laxasu dem yalwaane nee na ñaar la yemale kon bëggu tey yëlëf dara moom melo yi nga xamante ni moom la ñu xàmmee am murit melo yi nga xàmmee am murit sëriñ bi sëriñ bi way na ko bi ci njëkk mooy murit bi ci boppam day bàyyi ak bëgg sëriñ bi di ko bëggal wasful tarku tarkuhul irada li wacci may yafalu ma arada beneen bi di murid bi bu fekkee bëggu dara lu may yàlla soo xadim radiyallahu taala anu ne kooku dana àgg ci yàlla te suñu borom subhanahu wa taala dana ko xéewale ca xéewal yu rëy ya man lam yurid shay'an shawa mawlaahu yasil lahu wa xayruhu awlaahu ba tey tamit nee na képp koo xamante ni dafa aju ci ab sëriñ bu àgg nee na fu mu mën a jaar dana àgg ci yàlla fekk dafa aju ci sëriñ boo xamante ni àggul ci yàlla nag doo dem fenn loolu bu ñu ko doon misaal ci olof mu leer nañ mooy ki xam yoonu tuba xam mbeddi Touba xam dëkkub Touba kooku boo ànd ak moom fi mu lay jëmale mooy ci biir Touba la lay indi bokkut ak yi nga xamante ni musta dem Touba xamul Touba yu kooku boo ànd ak moom sànq la lay gën a yomb loolu mooy xamle bi gën a gàtt loolu wax na fa man taallaq bi waasilin wasal wa man taallaq bi aksiyin fasal daal képp koo xamante ni euh, yaru na maanaam képp koo xamante ni demut ci ab sëriñ bu tarbiyee mu tari ko nee na ay coono rek lay desel wa kullu man lam yata wa kullu man lam yata addab zamana ala yaday cheikhin fa yalka bixna nee na tamit képp koo xamante ne ñàkk na ab sëriñ boo xamante ne moo koy gindi di ko jubal di ko wan yoon wi nee na kooku saytaane mooy sëriñam li anna man adima cheikhan murshida fa cheikhuhu cheytaanu haysu qasada neen ab sëriñ nag liñ koy xàmmee mooy du wuuteeg yonent bi sallallahu alayhi ci dara kon bépp sëriñ boo xamante ni gis nga ko mu wuuteeg dara ak yonent bi sallallahu nekk fu ko nekk fu ñukk dem xooli koo xamante ni léppam njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wasallam la loolu wax ne fa cheikhu la yuxaalifu almusaffaa fa man naha amra almurabbi intafaa daani sëriñ boobu nag bu fekkee am nga ko muy sëriñ bu mat sëriñ lépp lu la digal na nga ko def nee na digal loolu mu lay digal mo lay agal ci yalla lepp lu mu la téré nang ko baye ndax téré yoy mo lay may ngërëmal yalla fa amaraka fa amaraka al murabbi famtathil al amra tasil lir rabbi wa xaytuma nahaka an shay'in fala tamil lahu wa an ridan la tuhwala kon lol lol la señ bi indi bu ko defé timi ne amna melo yo xamanteni melo yu siw la ñu ngi koy ci lañu xamé murid moy moy moy kan señ bi neen way nako ngir bañ murid woro waru jàpp na diw sang murid sadiq la fekkene murid loolu wayna ko mu leer nañ ma lay nag kep ku ko dégg rek mu daje ci yow man nga jappé sa bopp murid saadix bi ci njëkk mooy lan dana ashadduku fi mahabbati shaykh abad thumma imtisalu amrihi hatu warad bi ci njëkk moy murid bi dafa wara sop sopp ab sëriñam sop gu deug mo li tudda al mahabbatu sadiq sop, gu deug ta yalla tax noonu rek la wara sopé mu noonu la wara àndee serign bi ñaarelu sart bi moy mu top ndigalam lepp lu mu ko mu def ko ta yalla tax ndax nit ki dañoo wax ne boo ko bëggee faaw nga topp ko alxuraan nee na qul wax kuntum tuhibbuuna allaha fattabi'uuni su wa taala ne ko yéefar ñooñu li wax dëggul ci ñoom ndax bu fekkoon ne gëm na la dañuy topp li ma wàcc ci yow kon ki nga gëm wala ki nga bëgg faaw da ngay topp ay ndigalam kon képp koo xamante ne dane dafa bëgg yàlla faaw mu topp li yàlla di dégle képp koo xamante ne da bëgg yonent sa sallallahu alayhi wa sallam faaw mu topp sunna mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, woon képp koo xamante ne dana bëgg dafa bëgg Seexul Xadiim faw mu topp lim jàngale te mooy li yàlla euh, wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñetteelu euh, euh, sart bi ci murid sadex mooy tarkul inraj tarkul intirad mu loxan wala bi baatin maanaam bàyyi di ngat sëriñ bu fekkee joxe na ndigal ndigal li joxe joxee koy def te bu ci di dara bañ a wax ne sëriñ bi daa waroon na nangam wala sëriñ bi daa nangam maam di di ngat xeeti di yooyu yëpp kon képp koy def sa taalibe matut kon bu fekkee ne bàyyi nga dingat kon bokk na ci sart yi nga xamante ne mooy sartu muridi saadix te nee na donte ci batin la donte ci xel la nga koy def loolu bu ko bi mooy bàyyi ak tànn sëriñ bi di la tànnal mooy salabul ixtiyaar mooy sëriñ bi boo nekkee ci moom danga mel ni ab néew am néew ki koy sàng moo koy jëmale nu ko neex nu ko sob mag ñi ànd ak sëriñ bi dem na ba nga xamante ni bu masana am ah, ak leer lu mel ne am tudd sëriñ bi mooy joxe moom mooy joxe tur wa ku ci masaana euh, wut soxna sëriñ bi tamit mooy def lépp ñoom dawul tànnal dara seen bopp ñoom mag ñi loolu ci la nekkoon ba tey nee na képp koo xamante ni boole na yëpp nag kooku mën nañ ko muri saadix képp ku boole melo yii mu la wax mais mën nañ ko boole muri saadix te nee na ku ko boole dana dab mag ñu baax ñu fi nekkoon bokk na ci xijaab yi nga xamante ni mooy yiir nit ki ba do ag ci yalla wala leeru yalla du meuna ag ci mom ki nga xamante dafa bëgg ay dara jëjë kawé lu mel maqama ci borom subhanahu wa taala euh sëriñ bi indil nako ay ay ay yo xamanteni man na ci jaar bi ci ñëk sëriñ bi wax ko mu tënku ci juroom benn yoo xamante ni sëriñ bi dana ko lim léegi mooy walil hijabi sittatun min al usul wa qat'uha haqqun liman ramal usul amna juroom benn yoo xamante murid bi war na ko moytu war na moytul boppam ndax bu ci nekkee rek day def benn kiiraay diggante ma borom subhanahu wa taala wax na ci nax joxe dayal xaj ne tarumul majda tumatanaamu layla laqad atmanta nafsaka fil muhaali yaa ngi ne da nga bëgg dara ju kawe sa borom subhanahu wa taala te bu guddi jotee nga lal sa lal fas yéene nelaw guddi gépp nee na yaa ngi bëgg loo xamante ni lu jomm la lu jomm la melo yooyu bi ci njëkk wala sikki yooyu bi ci njëkk mooy kasaratul akli mooy bëri ak lekk koo xamante ni foo ko fekk day lekk rek murid boo xamante ni ku bëgg la du du du gaaw ak àgg ci yàlla duñu wax ne du àgg ci yàlla waaye nag du gaaw ndax loolu da koy da koy yeexal beneen mooy kasratu sharab mooy ku bëri ak naan koo xamante ni bu xëy soo mën naa naan potu ndox bu demee ba côté tisbaar naa naan potu ndox bu demee ba guddi naa naan potu ndox jàpp ne lii moo gën ci moom fekkee ne murit bi moom loolu gënul ci moom kon am murit loolu xijaab lay doon ci moom beneen mooy di jaxasoo nit ñi foo toll mooy ñi nga xam ne amuñ benn njariñ ngay jaxasoo ñu moom loolu mooy galamparage rek nga xamante ni boo ko defut day mel ni toogoo fenn loolu bokk na ci xijaab yi nga xamante ni Moyir yir murid bi bo do ag ci yalla benen moy kasratul kalam moy bari wax manam di wax rek wax jo xamanteni amul benn njariñ lolu hijab la bo xamanteni day yir nit ki diggante borom subhanahu wa taala benen moy kasratul manam moy bari ay nelaw ko xamanteni ne foo fekk day nelaw rek du yow mukk koku lolu timi hijab la diggante borom subhanahu wa taala ak saggan ci tuddu yalla moy wax an dhikri rabbina salam koo xamante li mu tudd yàlla bëriwut wala dafa néew li mu tudd yàlla loolu tamit xijaab la diggante beeg borom subhanahu boo demee ci téere bu naan awaariful maarif euh, benn borom xam-xam bind ko mi ngi wax ne malaaka yi borom subhanahu wa taala dañuy jooyee ci murit bu bëgg lekk ngir yërëm ko ma la wax ne xad axbaru anna malaika al jalil tabki ala al muridi in kaana akul li rahmatin ali fanzur daaka fi taalifi di awaarifil maarif ne bu demee ci taalif da nga fekk borom téré bi di wax ne malaaka yi borom subhanahu wa ta'ala day jooy ci murid bu bëgg lek bokku na ci li ñuy xàmmee murid bu dëggal mooy li nga baaxoo def ci aw waxtu waxtu wu jot nga def ko dara man la ko yàqal ak mbooloo mi lu mu xat-xat li nga baaxoo def moo xam jàng alquran la moo xam jàng xasida la moo xam wirdu maaxus la moo xam lu mu mën di doon waxtu wi lu mu xat-xat bokk na ci li nga xam murid na kii murid sadiq la waxtu wi saa bu jotee nga dem def ko te nee na nanga nga bañ a wax ne damay xaar ba suba wala damay xaar ba ci kanam li ñu tuddee taswif mooy néeg néegal ndax wax ne boo ëllëgee woon xam ñi fa ëpp ay jooy mooy ñi daa néeg néegal ci def lu baax wala néeg néegal ci bàyyi lu bon na boo demee ci téere bu naan junnatul murid bi cheikhina al xalifa da nga ko fekk fal tansuru fi junnatul murid yi li cheikhina al xalifati rachidi ba tey tamit sëriñ bi nee na xolum murid daa war di gaaw a tooy nee na xolum murid bokk na ci mandargaam yi nga xamee mooy day gaaw a tooy murid dëgg saa bu diggee autori turu yàlla xolam day tooy saa bu diggee ñu jàng kasida xolam day tooy saa bu diggee xikma ma mooy wax joo xamante ni uh, wax joo xam ne suñu subhaanahu wa taala moo koy sol doomu aadama mu wax ko nee na bu ko déggee xolam day tooy waaye nee na marit nag marit marit ak murit bokkuñu marit mooy nee na marit xol bi comme comme comme doj mënoo wax lu tooyal xol bi ma la wax naan qalbu muridin kalmadar wa qalbul maridi kal xajar wal xikmatu kalmatar murid deg moy ko xamanteni ni xol bi day gawa toy sa bu dégg turu yalla wala mu dégg ñu jang alquran wala mu jéggi jang ci xasida wala ñu tuddu yalla xol bi day toy koku mooy murid deg, way ko xamanteni luñu luñ mën di wax ci do do do yëngatu doo def dara sa bu dégg alquran dara du la kii saa boo déggee xasida tamit dara du la fen wo war nga demal ci docteur mu xol la batay serigne bi digle na murid ñi jang alquran lolu fal yu dim saxo saxo jang alquran kullu muridin bi yàlla du fal yu dim tilawatan la xëyri dikrin xadru sim nee na murid yi nañ jàng saxaw di jàng alxuraan jamono sëriñ bi wax ne am na ñoo xamante ne leen digaloon ñaar fukki isib yoo xamante ni moom lañuy jàng wax nañ ci mel ni euh, am na ñoo xamante ni maam seen firi ji dëgërutoon waaye ci noonu ci lan demee ba nga xamante ni ci lan miin alxuraan kon nit ki lu mu tàmmal boppam rek dana ko man moo tax ma ne donte ñetti isib la sax boo xëy suba na ko jàng adim tilawatan watan del kitaabi walaw thalaatatan min al ahzaabi jonté ñet isib la nang ko jang. ba tey tamit sëriñ bi mi ngi soñé ci ak jaamu yalla nee na dafa wara jaamu yalla mourid dafa wara jaamu yalla bo gisé kanam di mu saf sàpp ak yalla sëriñ bi dañu wax né fep fu mu mas def na fa jakka jo xamanteni waxtu wu jot mourid yépp dañuy bolo dem julli ci jàkka ja amut kenn guy dess ci kër ga amut kenn guy dess ci kër ga lepp lo xamanteni dañ koy dañ koy defal nak ba waxtu jot mi lolou dañ koy dindi wala dañuy taxaw bu waxtu yi jotee lépp lu ñu ko defal dañuy taxaw ba julli waxtu bu suñu subhaanahu wa taala ba noppi dooga àggale loola loolu wax ne yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakumu bi ma bi xayru wara jaahu murid bi dafa war a bëgg ak jaamu yàlla waxtu wu de saa bu noddkat bi noddee na la fekk ca jàkka ja loolu mooy meloy murid moo tax sëriñ Ibrahima Diop almashar yi doon leen sargal ñoom ñi nga xamante ne ànd na ko Seexul Xadim radiyallahu taala anhu nee na yatluuna kitaaballahi thumma ila al masajidi tardan fa tardadu neena na ña àndoon ak Cheikh Khadim radiyallahu taala anu bu lu bëgg xamé neena fo leen fekk ñoom dañoo saxoon di al qur'an fo leen fekk nanda daa bàggante diggante kër ga ak jàkka ja loolu moo nekkoon sen seen liggéey ñoom ñu àndoon ak Cheikh Khadim radiyallahu taala anu bu ko defee tamit nee am murid da war di jug guddi manam baye ba ñepp tëdd nga jug def khiyamul layli neena am murid da ko war def lolu bind nako bal xum sarean xii na yax jawal wara saa yoo xamante ni ñëpp tëdd nañ yow murid bi yow mi nga xamante ni ndax murid moom moom moo ko waxal boppam al muridullah la wax ci namm yàlla ki nga xamante ni yàlla rek moo ko ñor kon kooku fi nga xamante ni nit ñi dañoo sàggan ci yàlla foofu la war a jugee nag profito am yàlla loo tax ma ne bal xum sarean xii na yax jawal wara waxtu yoo xamante nit ñi dañuy nelaw daal di saggan lool ci wàllum tudd yàlla ak jaamu yàlla yow murid bi ne na nga gaaw jug dem jaamu yàlla amna lettre bo xamanteni serigne bi da ko bind mbolim taalibe yépp kep ko yi ci mom la ko bind moy lettre bo xamanteni kenn ku ne war la ko def ci negam waxtu wona mu koy mu koy jàngat diko diko diko ko di jafe lettre bi fi la tambalé da wax ne tumma kataba ila jami'il al muridina wal muridati salamun tayyibun yasimu al jamia min al maridina wal maridati wa yadkhulu al jamia fi salamati wal afiyati fi dunya wal akhirati bi jahi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa barak dan amma ba'du fa inni amartu kulla man taallaq bi li wajhi llahi taala alkarim bi taallumi alxaqaidi waltawxidi wa ahkaami altahaarati walsolati wa siyaami gayriha min kulli ma yajibu ala kulli mukallafin wa inni takafaltu lakum wala kunna bi tawalifi yakunu fiha jamiu dalik li wajhi llahi taala alkarim daal cee teg wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh loo ci teg loolu mooy lan dana bind naa am lettre boo xamante ni mi ngi jëm ci mboolem murit bu góor ak murit bu jigéen dana nuyoo bu teey nuyoo bu sell boo xamante ni dana leen musal ci bépp marit marit ak murit bokkuñu marit moo xam mooy koo xamante ni xol bi dafa wow dara mënu koo dugg nee na nuyoo boobu dana leen muccal ci képp koo xamante ni marit la moo xam góor la moo xam jigéen la ne nuyoo boobu dana leen tàmbal ci jàmmi adduna ak jàmmi alaxira mooy way duxulul jamia fi salaamati wal afiya fi dina wal axira ci dara yeey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daane ginnaaw bi loolu jàllee nag man cheikhul xadim radiallahu taala anhu maa ngi digal képp koo xamante ni nee na mën na jox boppam maam man ci man la aju ngir jëm yàlla waaw loolu jar naa leeral maanaam aju ci sëriñ bi ngir jëm yàlla kulla man taallaka bii bi wajhi llaahi taala al karim maa ngi koy digal bi taallumil haqaa'id maanaam xam lu pas-pas yi maam li ñu war a pas yi diine war ko gëm nga xamante murid bu ne war na koo xam gëm ko suñu borom subhaanahu wa taala am na ay melo yoo xamante ni jullit bu ne war na xam war na ko gëstu war koo xam war koo mokkal melo yi sax ci moom ak melo yu jomb ci moom jullit bi war na koo xam rawatina murid bi euh, war naa xamlu malaaka yi xàmmee leen am na malaaka yoo xamante ni faaw da leen war a ràññee xam leen nga xam ne yooyu boo leen xamee ràññee leen da yóbbaale ñi des ñëpp yónent yi tamit am na ci ñoo xamante ni faaw da leen war a xàmmee ràññee leen yow jullit bi rawatina murid bi ñu tënku ko sëriñ bi tënku ko ci baatub kaaf ak ha muy kahun muy ñaar fukki yónent yi ak juróom kooku jullit bu ne war na koo xàmmee ràññee euh, nee na ginnaaw loolu nga teg ca xam-xamu tawxiid maanaam nga xam tawxiid mooy ni wéetale yàlla ba bañ ko bokkaale ak dara booy jaamu yàlla jaamu ko jaamu ko sell goo xam ne da ko bokkaale ak dara beneen bi nga xam atee laab mooy ahkaami tahaara xam atee laab mooy lan ak ak li koy war xeet demee noonu nga xam ne julli mënut a baax mukk loolu dafa ànd ak laab nga xam tamit ahkaami solaat maanaam xam ate julli xam ate koor ak lépp loo xamante ni dafa war ci mukallaf nga xam ko sëriñ bi tamit na da warlu na ay téré yo xamanteni ni bind naa ko ba tasu zikhar tasu suban al jawharu nafis ma xaaliku neexar ma sudur munawir sudur ma qudus masalikul jinan yoy yep ma bi bind na ngir ñun ñun rek ñoko taxaju tax na ci euh, téré yoy li ma bindal yep ma nga fa la ci wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh loolu la ci tek kon fi nga tëyee moy ben euh, laaj ak tontu bo sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana moo ko doon def diggante ak sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana moo ko doon def digganteem ak boppam maanaam da doon laaj ak tontu bëgg a xam le li sëriñ bi doon woote daa wax ne as-su'al ma daa ilayhi cheikhu asaabu wartaqa bihim ilayhi ma huwa maanaam sëriñ bi li mu doon woote ne daa bëgg a ànd ak taalibe yi yéeg loolu loolu mooy lan daane aljawaab tontu li tontu li mooy lan tontu mooy ala huwa al ixlaas sëriñ bi li mu doon woote lépp du dara lu may al ixlaas dan ne ixlaas bi nga xamante ne man loo xam ne jëf jëf am na ruux day wax ne al ixlaas mooy ruuga daan ne ñi xam yàlla dëgg sellal googu li mu leen di jural mooy àgg ci yàlla daan ne àgg ci yàlla nag bu ñu ko waxee nekkut dem ba ci yàlla nga toog fa déedéet nee na loolu xibaara la maanaam waxin la àgg ci yàlla waxin la lan mooy àgg ci yàlla mooy nit ki sellal ay xarakaatam maanaam ay yëngatoom ay sakanaatam ay xaqaa idam ay aqwaalam ay afaalam ay axwaalam maanaam ay dalam ay paspasam ay waxam ay jëfam ay mbiram yëpp biir mbit mu sellal ko jox ko jox ko yàlla loolu rek mooy mooy àgg ci yàlla loolu bu amee rek nit ki àgg na ci yàlla nee na euh, seexu taalim bi muy sëriñ bi ne mooy mooy jàngale nee na kooku mooy ne la lii daa dagan lii daa xaram lii lañ sib nangam ak nangam ne loolu bu la ko waxee ba noppi nag mën nga ko def mën nga ko bañ a def nee na foofu nag la seexu tarbiya bi amee soo ko tarbi foofu la amee solo bu la sëriñ bi jàngalee ba noppi moom mooy ñëw jàngonteeg yow di la teg ay war-war lu mel ne bu fekkee koo xamante ni euh, dafa rëy mu yàllaan loo ko bu fekkee ne xam dafa siis mu koy seddloo xeet yi demee noonu comme ni ma njëkk wax bu fekkee ne koo xamante dafa taayal mu koy naafile loo naafile yu gudd mu koy jiitoo ay naafile bu fekkee ne koo xam dafa bëgg daraja mu koy yàllaan loo xeet noonu nee na sëriñ bi du dañ ci loolu moog taalibe bi dem ba nga xamante ni day wan taalibe bi sikki boppam day dem ba xamante tey bi dootu gis sikki nit dootu gis sikki nit sikki boppam rek lay gis ndax Seydou Fall daana wax ne eh, nit ki li fekk yaa ngi gis sikki jàmbur yow defaroo ko nit ki li fekk mi ngi gis sikki jàmbur moo defaroo ko bu defee nag sëriñ bi ginnaaw bi nga xamante ne sallallahu alayhi eh, jox na ko loolu ba mu tàmbalee tarbiya nekk ci eh, yoon woowu moo gaayam yooyu yoon yu njëkk teg mooy minhaju riyaada mooy yoonu tàggat lépp loo bëgg a jariñoo faaw da nga koy tàggat. ba mën ko jariñoo fas yi nga xamante ne boo bëgg a jariñoo sa faaw nga tàggat nit ki nag boo ko bëggee jariñoo wala ci wàllum yàlla li ngay njëkk def ci moom mooy wàllum xiif ak di ko liggéey xëy deme noonu kon sëriñ bi li teg ci wàllum riyaada googu mooy tajwin li ñu mooy xiifal leen daana wax ne benn ngóobu baraaya lan daa lan daa lan daa lan daa lekk daal di jàllale daa koy jàllale benn kubéeru satala nga xamante waxtu ba waxtu lañ koy def loolu sëriñ bi noonu la tarbiya daana liggéey loo tamit liggéey xamante ne liggéey yu bëri la daal leen tudd loo yàlla lu mel ni laa ilaha la lu bëree bëri loo xamante ne lañ ci daa def ak di leen jàngaloo xasida yi Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu di leen taxawaloo laab fu ñu toll di leen beraloo nit ñi nga xamante ni amuñu amuñu njariñ rawatina jigéen ñi nga xamante ni moom la sëriñ bi tuddee as-saarifatul himam mooy dañuy nga xam ne dañuy yitte dañuy dañuy wëlbati ay yitte nee na ci loolu la nekk nag nekk ci loolu fa faaxu gayrahum bi hada nee na ci loolu ci la nekk ba kawe ñoom dañu ko may moy id jaa'u bi anfusihim wa amwalihim fi sabili mardatillah ne dañu joxe won sen bakkan joxe sen alal jenne ko ngeeramal yalla ñom ñi andu nak sayyid Seex Xadim radiyallahu ta'ala anhu ñu sahaba yi lañ doon roy ndax sayyid khadim mo nga waxon roy lan sahaba yi ndax ñoy sen bay ci dine motax suñu borom tag sahaba yi ci alquran inna allaha astara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna ñoy ñi nga xamanteni dañu joxe won sen bakkan ak seeni alal lepp rek jenne ko ngeeramal borom subhanahu wa ta'ala kon bu ko defee nag euh, xam naa dañuy dañuy dañuy kii rek daal di daal tëj foofu di jégalu bu baax a baax ci xaw a guddal geeg xeet yu demee noonu di ñaanal bu baax suñu kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ bokkal jotaay bi suñu borom kàttanal leen te wéral leen ba yéen ji ñu am ci lislaam suñu borom mottali ko dañuy jégalu bu baax a baax a baax nag xam naa xëy na waroon naa gën a mën a leer waroon naa mën a gën a fasaxa waaye nag xam naa koor gi moom daa xaw a sant ndaw ak ñu jéglu bu baax a baax ñaan suñu borom lépp luñ fi waxtu muy aw yiw suñu borom boole ñu ko ñun ñëpp jërëjëf alquranul karim asalaamaaleykum wa rahmatullahi ba nga ko joxee adiya mu ne ko jazaka xayral jazaka xayral jazal wahaabu wa fi safal bidaadi la tartaabu fa kayfa la wal mustafa almujaabu إمامنا والقتل لا نهاب جزاك الله خير الجزاء أه وقت فتبارك الله أه مرنا سك تليرنا ناني دفناني كتي بغا جارينو دينج جارينو لي دي وخنان ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد داغي ديغلو تيولو ndax dégg ak teewlu bokkuñu mën ngaa dégg li may wax waaye xamoo li muy wax kon da ngay déglu boole kook teewlu ki déglu boole kook teewlu nag ni ko Ibnu Qayyim waxee ca téeram bu am solo boobu alfawaid kooku moom mooy gën a jariñu liman kaana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid wa huwa shahid googu da ca am solo mooy teewlu bi xam naa gars yi sant siise yaakamte nañoo ndogu ji kon ñu gàttal ko rek sëriñ Maamour Mbàkke li mu doon wax muy lu am solo mooy tarbiya rawatina nag mu jëmale ko ci diggante tarbiya ak xaadimu rasul boo xoolee alquran loola ko tax a wàcc yar nit ñi damay wax ne borom bi bi muy wax bi muy wàccee suuratul xujuraat كوكو سيتنتال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا ان نيجان صح لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم بول جيتو يالا اكو يونتم لب لوي ديف خولال باخام لي تي يالا واخ اك لي لي تي يونتم صلى الله عليه وسلم واخ موي بن ديغنتي سيرينك اك طالبم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي yéen ñi gëm yàlla bu ngeen toogee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waatee seen kàddu kon taalibe bi bu toogee ci kanamu sëriñam munu wuru koo xool sax siggi du ko xool wuru ko def waaye am na ñoo xam ne suñu sëriñ bu toogee bu toogee loolu neex li wax fu leen neex xool loolu bokk ci taal diggante bokk ci teggin gi war a dox diggante taalibe ak sëriñam la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl nga xamne leg leg serigne bi sax day wax ngay wax léeg-léeg sax nga dag ay waxam la tarfau aswatakum fawqa sawti nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri li ba'd ndax lo day yàq jëf an tahbata amalukum sayyid seeni jëf mën naa yàqu wa antum la tashurun inna alladhina yunaadunaka min warai al-hujurat amna ño xamne dañ ne dañ daan ñëw ci yunus sallallahu alayhi wasallam taxaw ci bunu kërëm diko wo muhammad muhammad borom tabaraka wa taala wàcce aaya bi inna alladina yunaaduunaka min waraa'il hujurat aktharuhum la yaqiluun ñii taxaw fee di la woo ñu ëpp ci ñoom amuñu xel walaw annahum sabaru xatta taxruja ilayhim la kaana xayra lahum wallahu afra buñ mu ñoon tuuti ba nga génn ci ñoom ñu wax ak yow loolu moo gën ci ñoom kon loolu mooy diggante sëriñ ak taalibam kon sëriñ Mamour li nga wax yëpp loolu moo تخ القران واتش بو تاملي الف لام ميم بوكو لو انظر بالناس خولل جيكو يتي سون بروم ليم خولل ذلك الكتاب لا يرى فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون تخول جولي دي جوخي سا الله بودي تي والو بوغ يالا خولل لي تي يالا واخ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ني گم يالا بو ني دگي تورو يالا سين خول دي تيت خولل لول بليتي والو جوخي علال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ولا فيضاعفه له وله اجر كريم انا كالمو الى بل يالا بر بر بر رفت يالا فولر مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم ويلو متنا جوخي علال بونو بيك بوبوك بو سوره البقره خلال لي واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين واكل مال على حبه غوغ مو تي جاف جوخي سا علال بون في ام تي سوخلا نا سوخلا كو بون ديكو جوخي موي لو جافي خولال يالا ني مي ياري بكاني تي والو بوغ يالا تي والو جامو يالا تي والو جوخي علال خولال ني تي ياري دوم ادمي كون لي يالا دي واخ كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يار يالا wacce alquran motax mu dan yuni yonente yi kon nak li nga wax fa amna solo mu teje rek euh lo xamne xaadimu rasul moo ko daan wax mu dege ko ci ben domi serigne mamour Jaar Mbàkke genn doomam ju jigen radiyallahu anha dafa waxon ne serigne bi neena ñent ñi am ki jege maanaam ki ma jege te jege ak ki ma sori te sori ak ki ma sori te jege ak ki ma sori ak ki ma sori te jege boobu wala wala ki ma sori te jege wala ki ma jege te sori bokk ki ma jege te sori euh, ki jege te jege mooy ki bokk ak sëriñ bi deret ba noppi nekk ci ndigal yi kooku moom dafay jege sëriñ Tuubaa ci wàllu deret jege ko ci wàllu jàmm yàlla kooku moom moo gën a neex na ñëpp yal yàlla boole ci kooku ki ma sori te sori mooy ki nga xam ne bokkul ak sëriñ bi dara bokkuñu aw askan bokkuñu deret te jéemut a baax kooku moom moom baaxut ki ma sori te jege ki nga xam ne bokkul ak sëriñ bi aw askan waaye nag ñu ngi jéem a baax li may faral di wax ne ki nekk Arabie Saoudite ki nekk Allemagne ki nekk gannaaw Inde xamul sax Serigne Touba waaye mi ngi jéem ragal yàlla jéem a man gëm naa ne kooku ëllëg dana gis Serigne Touba al axillaau baaduhum ayna al xuffaz al axillaau baaduhum li baadin aduwun illa al muttaqin kima ma sori ki ma jege te sori wala ki ma sori te jege bokk wala jaxasewu ma sori te jege mooy koo xam ne ki ma sori te jege mooy koo xam ne bokkut ak Sëriñ Tuubaa aw askan waaye jëm naa baax ki ma jege te sori nag mooy ki nga xam ne mi ngi jéem a baax di jëm a góorgóorlu ci jaamu yàlla waaye nag bokkut ak Sëriñ Tuubaa aw askan ñeenti ñii ñoo am kon nag nañ jéem a bokk ci ñi nga xam ne ñoo jege te jege nañ bokk nañ jéem a bokk ci ñi nga xam ne ñoo jege te jege mooy ñi nga xam ne buñ bokk buñ jéem bokk ci ñi nga xam ne ñoo jege ci wàllu deret bokk ñu jëm koo jege ci wàllu jaamu yàlla ragal yàlla ak sellal kon nag ñu tënk ko rek Cissé Cissé yi jaxat jaxate yàkkamti kon nag ñu tëj waxtaan wi di ñaanal kilifa yi di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké suñu borom tabaaraka wa taala yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem kilifa diine yi yàggal fii sëriñ bi sëriñ Maxtaar Jenn suñu borom yàggal ko fi te wéral ko àggale yéenam yàggal fii sëriñ bi doon def waxtaan bi sëriñ Mamour Mbacke ak mboolem borom xam-xam yi rek wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ak senevision.com la crédibilité notre credo. senevision.com wóor la ñuy tëggoo. senevision.com kumpa tàggoo nag yi.